beneen bi ci des mooy ma wax ci diaspora bi gespora bi dafa nekk euh, ñoo xam ne nii euh, dañuy produire lu bari ci Sénégal te joxuñ leen seen euh, gëdd xam ngeen ne nit dañ ko war a permettre bu bëggee dem liggéeye ci benn dëkk mu mu wut visa dem liggéeyi. ñun niñ ko gisee woon mooy da ngay dañuy négocier ay quota comme yi am Amérique am Canada am yëpp ñoom soxla nañ main d'œuvre mais yóbbuñ suñ doom ñi pour dem ñu toog fa. dama ci am benn programme boo xam ne mu ngi tudd agir mooy euh, gestion de l'immigration et de retour mooy dañuy négocier ak réew yi nga xam ne nii dañoo soxla main d'œuvre ay quota yoo xam ne nii danañ mën a dem liggéey fa bala ñoo dem ñoom ñoom la ñuy yebalal ñu ñëw fii ñu former ñooñu ci niñ bëggee ñu liggéeyee mais durée de contrat bi day doon maximum cinq ans parce que suñ sañoon tamit dañu yóbbu suñ doom yi ñu toog foofu di liggéey toog foofu mais dañuy ñibbisi bu ñibbisee état bi jàppale leen bañ mën a développer ay projet projet yooyu nag ci secteur bi ñu doon liggéeyee ci la lay jàppale diggante ba nga fa nekk tamit ambassade bi day nekk sa kër lépp loo soxla ci wàllu këyit ci loo mën a doon rek ambassade yi dañ koy transformer mu nekk ambassade des bureaux économiques yoo xam ne li ëpp lu muy toppatoo day topp too sénégalais yi nekk foofu ci àdduna bi yëpp nag loolu su ma ko waxee moom ci àdduna bi yëpp en même temps tamit di leen jàppale teg fa ay programme yoo xam ne nii képp ku bëgg a ñibbisi ñu jàppale la ba nga mën a am say logement ba nga mën a ñibbisi investir def euh, def développement fii nga xam ne ni tamit du tee da nga mën di dem ak ñëw fili financé yi ñuy am ñu jën ko valoriser mu nekk yoo xam ne du doon dépense rek day doon lu ñuy investir ci dëkk bi jàpp leen bañ koy mën di investir nga xam ne nii dana mat fon boo xam ne ni bu ko investir dana mën a am lu ciy génne di jox waa këram dépense moo gën mu toog foofu rek di leen yónnee dépense leen yónnee dépense